Ibrahima balaa dara xew dama lay wax ni la ñun suñu équipe nga bokk mhm. Ibrahima dañoo bëgg nga ñëw fekk suñu équipe sol sunu numéro dis di jouer ndax ñun lan laa bëgg ñun waa kër Sidi Hadji Malick dañ laa bëgg ci suñu xol yi ñun bu ñu sañoon suñu classement heure bu ñuy jouer da boot numéro 10 nekk ca digg ba li may wax nag taalibi Sidi Hadji Malick yëpp laa koy waxal tu fais partie de nous tu fais partie de nous def naa ak benn vidéo dugal ko ci laa yëgee ni taalibi Sidi Hadji Malick seen xol yi nga ne

fu nu dem naa fekk la ñuy doon barki siit eh. Allah kër gu ñu dugg rek naa fekk la ñuy doon mhm. te dañuy gaaw a yedd mhm. ah, ah li ko jëlee fee moo ko indi li ko indi fii nag moo ko fiy jëlee mhm. donc fii la ñu fii mooy sunu kër la ñu jàngee fi la ñu yaroo fi la ñu defee lépp kon donc duñ ko duñ ko bàyyi parce que daal ma maa duñ ko bàyyi waaw ah, ko defee nag ah, dañuy ñaan rek ñëpp ñëw